dafa amone collaboration bo xamanteni dañ ko am avec les autorités municipales ci bir lolu ñom les maires dañu jëloon engagement à ce que né ñom buñu ñëwé ñëwee danañu jël li nga xamanteni mo mooy nekk la responsabilité di rémunérer ñi nga xamanteni ñom ño ñoo nekk volontaire communautaire yooyu ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo nekk ci bir salle mais depuis Boba, gis nañ que ne manquement daf ci am manquement notoire bo xam daf ci am manquement bobu nak daf ci bokk moy tay ji ni depuis euh, le mois de mars 2023 jotuñu benn salaire bo xamanteni venant du projet te xam ngeen ne depuis booba projet bi bu fayul xam ngeen ne wax nañ ko yooni yooni yoon jàllale nañ ko fi ko war a jàllale les maires certains maires la ñuy wax que ne ñoom fay ñu fay ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ña fay jàngale. dañuy wax à ce que ne euh, le projet Pipareas il faut que mu respecté engagement yi nga xam ne jëloon na ko si li nga xamante ni moo nekkoon envers les les les les volontaires communautaires. ci biir loolu ci biir loolu état du Sénégal dafa amoon benn décret boo xamante daf ko indi décret bi nag mu doon décret boo xamante nii dafay interdire li nga xamante nii moom moo nekk ñun les volontaires communautaires ñu def suñuy examen professionnel déjà ñun am nañ ñoo xamante ni jàlloon nañu si examen yooyu noonu def nañu seen suñu épreuve écrite ba jàlloon nañu ko si si biir loolu ci lañ ñu woo nañu mënatuñoo def li nga xamante ni moom moo nekk pratique te loolu ñu koy ñaawlu di ko naqarlu bu baax a baax a baax a baax. di woo l'état du Sénégal à ce que mu dellu si waat si décret boobu noonu.